moo su ma sañoon nee na moom sëñ aboo de bu sañoon fu baax ko fa dégg dinañ fa dégg waay bi te booba ba léegi te ba léegi nag bi coow li topp ko nit topp ko mi ngi may doog gisaat tey mi li waral loolu nee na moom li mooy fa may nekk nee na moom fa muy nekk di def li may def di def la muy def soxlawut ma koy gis soxlawut muy gis waay soxlawut ma luy jóge ci moom soxlawut luy jóge waaye cër bi ma joxoon waaye cër bi mu ko joxoon ba addunay tukki ba addunay tukki du ma ko fàtte du ko fàtte moom mm. moo tax maa ngi ñaan yàlla. nee na moo tax nag moom Balla Aïssa mi ngi ñaan yàlla. suñu borom yërëm coon suñu borom yërëm suñu papa coon. ndax moom ndax moom. Eh, du woon waykat rek. du woon waykat rek. waaye daf daan jàng waaye rek daf daan jàngale. ndax boo dégloo ci li muy wax. nee na boo dégloo ci li muy wax. dafay wax ci yàlla. dafay wax ci yàlla. am na fu muy tuddee ay alxuraan. am na fu muy tuddee ay ay alxuraan. am fu muy tuddee ay hadis. am na fu muy tuddee ay hadis. am fu am na fu muy tuddee xasiday sëñ Tuubaa yi. te noonu la meloon. noonu rek la meloon. bi bis mooy wàll joxe numéro këram. nee na bis bi ko wàll joxe numéro këram. Euh, Paris. Paris ma ñëw Sénégal woote fa. mu ñëw Sénégal woote moom moo ma wuyu. nee na moom suñu papa coon moo ko wuyu. dafa wax ba noppi. dafa wax ba noppi. mu ne ko xanaa yaay gardien bi. mu ne mu ne ko xanaa yaay gardien bi. dafa reetaan. dafa reetaan. kon nag. nee na kon nag. fee mu jëm. fee mu jëm. yàlla na ko dàqal fii. yàlla na ko dàqal fii mu jógee. waaye kii. waaye nee na kii toog. naa leen di xamal. sëñ bi ne mi ngi leen di xamal ni Waly mii toog. la ma ko waxoon keroog. la ma ko waxoon keroog. xam ne dégg nga fukki at ak juróom. mu jege fukki at ak juróom. ñaar fukki at ñaar fukki at ñaar fukki at. boobaag léegi. nii rek lay demee. nii rek lay demee. tey. tey. li jëm ci kanam. li jëm si kanam. lu ëpp lii rek. lu ëpp lii. moom lay gis moom lay gis. ndax moom. ndax nee na yow mii toog. gi mu am. taalibe bi nga am. su fekkonte ne. su fekkonte ne. daf doon daw. daf doon daw. di jël lim am. di jël mu am di ko def feneen. di ko def feneen. mën nañoo naqari. mën na koo naqari. waaye nag. waaye nag ku xam. ku xam. xam ne. xam ne. boo ñëwee Touba ci boo ñëwee Touba. ci màggal ci màggal gi. fu nekk fu nekk. alal ji mu am alal ji mu am. dana ko jëndaay nag. dana ko jëndaay nag. indi ko foofa indi ko foofa. séddale ko séddale ci waaye doole yi. ci néew doole yi. kon nag maa ngi koy ñaanal suñu borom. sëriñ sëriñ Aboo nee na kon mi ngi lay ñaanal bu baax. nga àgg fi nga bëgg a àgg. nga àgg fi nga bëgg a àgg. te mu ànd te yéen yi sa way jur amoon te yéene yi nga xam ne moom la sa way jur amoon te àggaliwu ko te àggali ko yàlla na ko àggali yàlla na ko àggali ñii nag ñee nañ presse bii toog nag ah muy presse en ligne bi muy presse en ligne xorom si leen yàlla may nee na yéen xorom si leen yàlla may lenn la lenn la na am na sànq nee na am na ko tudd sànq tur bi a fàtte euh, non euh, interview woon na ma ci màggal Tuubaa gi Médoune Médoune waaw euh, waxtaan nee na muy waxtaan ak Médoune ma ko yéen mu ne ko yéen. loo leen def. loo leen def. ci la nit ñi sawar. ci la nit sawar. di ko xool di ko xool ndax dafa gàtt. ndax dafa gàtt. ndax communication. ndax communication. lu mu gën a gàtt. lu mu gën a gàtt. gën a arrangé nit ñi koy xool. gën a arrangé nit ñi koy xool. moo tax yéen li ngeen def. moo tax yéen li ngeen def. dafa am solo. dafa am solo. da ngeen ciy defar nag. sëriñ bi nee na da ngeen ciy defar nag. te bañ cee yàq te bañ ci bañ cee yàq ndax lu ngeen bëgg a defar ndax nee na yéen loo leen bëgg a defar dina defar dina defar waaye lu ngeen bëgg a yàq nee na loo leen bëgg a yàq dina yàq dina yàq waaw taas ku tudd taas la nee na ku tudd taas la waaw moom moom interviewé woon na ma si mag nee na ku tudd taas la si la doon wax loolu la moom waaw waaw mi ngi film bi ba léegi nee na mi ngi film bi ba tey ma ngi ñaan nag nee na nag mi ngi ñaan yàlla suñu borom yàlla suñu borom lii ñu fi dajee lii ñu fi dajee suñu borom suturaal leen suñu borom suturaal leen ba kër yi ngeen yor ba kër yi ngeen yor li muy néew néew doole li muy néew néew doole suñu borom may leen ci doole seen borom may leen ci doole ba mu nekk kër yu mag ba mu nekk kër yu mag ngeen am ci ay rajo ngeen am ci ay rajo am ci ay télévision am ci ay télévision ñu leen ciy dégg ñu leen ciy dégg maa ngi sant ñëpp sëñ bi ne mi ngi sant ñëpp